léegi ñu ngi ziare bu baax a baax a baax. voilà di leen di accompagner képp ku yëngu ci activité su revenu pour pour leen financer waaw mooy suñu métier. ak préparation boo xamante ni dañ koy amal ci wàllu jaaree bi. lu mel ne fi nekk nii monsieur le préfet du département de la région de Diourbel mu ngi ànd ak une forte délégation. mu nekk nii nga xamante ni mooy si stand bi xam naa di dugg ci stand yi nga xamante ni ñoo fi nekk ma rappelé leen ko rek waa ANCAR ñu ngi fi. ています。

peut-être pas du problème d'emploi de la jeunesse. Et ça, c'est une euh, grande initiative. Surtout que c'est un jeu Donc, nous avons le droit tous de l'encourager et de l'accompagner. président waaw bien seet na ngeen def seet alhamdulilah waaw tukulóor yaa ngi noonu ça va yaa ngi ci jàmm ça va alhamdulilah waaw dëgg la la merci beaucoup c'était euh, le du

vraiment garantir sa santé à son chef Donc cette cérémonie est venue à son œuvre. et comme vous avez fait, vous profitez de cette fois, bien de cette exposition, c'est ce qu'il faut pour la communication. Dès qu'il y a communication, on est à peu près à Mais

réalisation ya muy def danga naan lii amul Diourbel ànd na ak ñoom gis nañ leen topp nañ leen mais benn problème nañu am te tey le canal de Diaoubaye ñi nga xam ne def na lii tey Diourbel mooy wane li nga xam ne liggéeyu jigéen ñi la kenn ku ci nekk ànd na ak ñoom wàcc nañ à la base xool nañ leen ñi ngay def liggéey bu mucc ayib mais problème bi nu am mooy problème de d'exposition amuñu point de vente ku ci nekk yaa ngi liggéey dans ton petit point te loolu du dundal dëkk loolu du dundal réew te dëkk bu dundul réew du li am Diourbel nag tey nag yàlla dafa indi ñu nekk ci weeru koor muy weer wu tedd mu préfet nga ñëw fii ñu am occasion pour wax ak yow ci li nga xam ne jigéen ñi ñu ngi koy tawat di ñëw au niveau du développement communautaire di ko wax kon yéen ñi nga xam yéen a fi taxawal nguur gi nekkal fi nguur gi jaw baaj may bi wax ko yéen dañ ni ngeen jàppale jigéen ñi may leen merci beaucoup. merci beaucoup Marita du développement communautaire de la région de Diourbel. toujours de continuer avec monsieur le préfet de visite stand je vous rappelle que stand euh, euh, euh, préfecture. Euh, ñëwoon fi nag benn xew-xew bu am solo bi nga xam ne ni tey jii am na fi muy euh, Diaw Baas di kenn ci njaareem euh, yàlla dogal na muy jeune bu dynamique jeune bu engagé wu jeune ba nga xam ne ni tey jii Jurbel rek moo ko ñor mu ñëw di fi indi ay innovation yu am solo tey tax na lépp lu ñu daan jéggaani tey yàlla dogal na am nañ ko fii ci dëkk bi ngir ak pastéefam ngir ak bëgg dëkk bi ngir ak gëm gëm-gëm ak ñi mu àndal di ci liggéey jaw baas andi woon lu bees tàq fii tey ci njaareem muy ay bâche yoo xam ne nii bâche yu marché la bâche yi luuma la ay stand yoo xam ne nii tey jii ku bëgg a euh, exposé ci euh, say marchandise mbaa say produit dooto am problème boobu jaw baas andi ko fi tey rien que pour le développement de Diourbel kon euh, ñi ngi dend kenn ki ci moom ka nga xam ne nii mooy bras droitam mooy léppi jaw foo gis jaw baax da ko fa gis muy su euh, ko Souka su ko Diop nu bëggoon nga andil askan wi lay seetaan euh, lan nga lan moo waral tey jii ngeen xalaat xalaat bu mel nii ba andi fii lii ngeen xam ne mooy innovation bu bees bu ngeen andi Diourbel. merci euh, Bara ñoo ngi leen di sant di gërëm ñëpp ñi nga xam ne si ñooy ñi teew li nga xam ne si moo tax ñu jël initiative bi mooy benn dañu xalaat ne dëkk bi dafa war a mais bu développer il faut que ñu am initiative. initiative mooy nag ñun gis nañ ne tey boo demee dëkk bu mel ni Dakar wala yeneen pays yi sax réew yi da ngay gis ñu fay def ay marché yoo xam ne si déplacé la mooy xool benn béréb ba nga xam ne si dañ fay tew installé nit ñi ñëw jaay fa bu ñu jaayee ba pare ñu déplacé waat béréb boobu ñu mën ko utiliser ñu gis loolu te nekk entreprise nekk entreprise affaire xew ak yenn manifestation yi mais ci suñuy programme ak suñu plan d'action ñu xool ne loolu war na mën a nekk ñu taxaw ci liggéey ci fexe wut ay financement propre financement pour jéem ko def moo tax tey ñu def journée bii def ko ngir askan bi def ko ngir population Diourbel waaye stand yi nag def nañ ci quantité bu bari déjà lu mat deux 200 stand déjà yu nga xam si disponible lan comme nous ñu ko ni nii mooy li nga xam ne si ni ni présenté nii nit ñi nekk fi di donc stand aussi c'est un stand qui nga xam da hauteur de cinq mètres la deux places la bu si nekk deux mètres cinquante donc il def nañ ci lu bari donc di bëgg euh, aussi comme nous avons ko waxee rek euh, lu ñuy def lu ne dañ koy travailler en collaboration avec euh, les collectivités locales à savoir les mairies mairie Diourbel mairie yi nga xam ñoo ci région de Diourbel ak région environnante yi nga xam si moo ñu wër yooyu yëpp danañ collaborer ñoom di fa liggéey nga xam si jaw baas nekkatul lu nga xam ne si dañuy xool lu nekk lu ñuy dëggaani feneen mais lu ñu war am rek ci wàllu bâche ak prestation manifestation fii lañ koy amee loolu moo tax ñu jël initiative bi permettre aussi ñëpp ñi nga xam si tey ñoo nekk fii nii mooy ay organisation de femmes moo xam ay ay ay ay ay ay ay yenn entreprise ay ñeneen nga xam ne si dañuy yëngatu bi dëkk bi ñu permet jox leen occasion pour ñu wone li nga xam ne si moo la ñuy def te loolu buñ ci jógee danañ continuer di travailler ak ñoom ba nga xam ne si tey am na naam la foire internationale de Dakar mais y aura une foire bi nga xam ne si typiquement pour la région de Diourbel ñu travailler si avec l'ensemble des acteurs moo xam jëndkat moo xam jaaykat moo xam organisation moo xam ak service yëpp ñoo ñëpp dana leen ci boole bu soobee yàlla su ko defee nga xam ne si Diourbel dana dana amaat beneen xar kanam bu bees Diourbel dana développé à travers. waaw euh, su ko beneen question bu nuy laaj euh, nu gis ne Njaareem nekk na dëkk ba nga xam ne nii tey jii ñu bëri dañ koy daw euh, ngir nee nan Diourbel dafa dee yéen su ngeen nekkee fii boobu ba léegi te dan naan mag du sëgg fu dara nekkul. ngeen nek fi bobu ba ñu gis ne amna avancement bu mag par rapport ak ñooñ liñ doon wax ak yéen ñun li ñuy gis ngeen koy réaliser lan lan lan ngay mëna andi fofu ci ñi nga xamne ne bëgg na noo ñëw nek euh, doomi jurbel nek fenen benen rew bëgg na investir jurbel ñooñu lan ngeen leen di conseiller. Euh, comme li may wax rek barki dem rek waxna ko ci ben anecdote bi ne demay di rencontrer ben serigne ben kilifa dafa waxna na ni jurbel dafa nek deug bo xamni ci bu difficile la parce que lo fi def nit ñi duñ am gëm-gëm ne lolu dana mëna réussir. donc loolu bi mu ci waxtaan mu ne ma dafa am benn waay bu fu waroon ñëw benn investir benn benn mbir mais bi mu fay investir mbokk yeeg ñu ko wër ñëpp dana taxaw ne ko bul dugal sa xaalis boo ko defee dana yàqu waaye mais waa ji dafa gëm defar ko mais waa ji yàlla xam na ne nee na bi mu defee 6 mois loolu daf ko réussir donc ñun it aussi comme ni ñuy def rek parce que ñun Jurbel lan am. mënuñoo génn Jurbel donc lu ñuy def lu nekk maanaam Jurbel rek moom moo ci am solo naam nag looy def lu nekk peut-être am na ñu naan parce que Jurbel dafa nekk dëkk moo xam si nit ñi doon jàpp ne dafa wow mais lii ñu réalisé par exemple ci affaire bâche bu nga xool yow bâche bi nga ko tàmbalee ci ay ay bâche weñ du dem ba yàgg muy def baasu baasu takk ba tey am nañ capacité di def ak couverture dans la région de Diourbel ak région environnante yi te it ci sunu projet yi bokkul sax yemul ci affaire stand yi mais dem nañ ba ci bâche yi nga xam ne si yi ngi jógee yi nga xel comme bâche ak Touba bâche bâche yooyu ñu ngi koy préparé pour andi ko fii nii ci Diourbel nga xam ne si dañuy couvrir société bi yëpp képp ku nga xam ne si ki soxla bâche VIP dañ la jox ko soxla yeneen bâche yi dañ la jox mais ngëm-ngëm la rek parce que man toujours damay man sama idéologie mooy man damaa dëgër bopp dëgër bopp mooy man lu ma war nar a def quel soit lu ma cay fekk parce que àdduna looy def lu nekk bul xool leneen defal rek gëm ne da def parce que Diourbel loolu ñun lépp lu nga xam ne daan def mais duñ ci xool lenn moo tax résultat yi nga xam ne a am ci lii ñu am ko te yeneen yi nga xam ne si ay résultat la am ko di ñaax aussi yeneen jurbel waaye ak yeneen nga xam ne nit ñi ñoo ko mën a développé keneen du ñu fekk du ñu ko développé donc loolu aussi nañ ci bàyyi xel kenn ku nekk la nga mën a am ak la nga mën a taxaw pour investir ko Diourbel nga ñëw investir ko à Diourbel mais ngëm-ngëm la rek boo ko gëmee yaakaar naa ne fii ñu toll donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm autorités yi nga xam ne si tey ñoom ñoo ñu jàppale di ko population bi ak organisation yi nga xam si tey ñoom ñoo ñëw jàpp ci manif organisation bi parce que yombut parce que ba ñuy jóg ñaari nit ñetti nit ñu dox di wax mais fu nu dem fu nekk sëriñ si ak kilifa yi ñu ngi ñuy jox encouragement dinu jàppale dinu topp naa ñu def leen nii def leen nii loolu moo ñu may tey ñu àgg résultat bii ñu àgg di gërëm yéen mënuñu def lenn sans la les médias parce que jamono dafa toll foo xam ne si médias yi ñoom ñooy yóbbu fenn fu nekk fu nu bëgg a dem foofu moo ko yóbbu donc di leen sant di gërëm yàlla na ne yàlla may ngeen am euh, li ngeen bëgg yàlla def ngeen am ay télévision ñoo xam ñi nga xam ne si yàlla defal leen jàmm waaw loolu moo nekkoon liñ leen jëlee si tey fii ci euh, exposition bi nga xam ne waa ba Diaw Bache amaloon nañ leen ko euh, di leen xamal ne yéen ngi ànd nag euh, seen caméraman Malick Ndiaye ak ki leen yoroon seen micro bi ñu koy wax Baara seen ngeen àndoon ceeg seen site seen Zoom ak Del Média Euh, di leen xamal ne la ay site la ya nga xam ne nii ñi ngi fii njaareem nekk nu lu dul euh, service servir askan wi euh, lépp la nga xam ne xew njaareem lépp la nga xam ne nii doomu aadama yi nekk bitim réew bëgg nañ nu jëlal leen ko fii njaareem ñoom nu koy gis foofu nu nekk di ko dund comme ni ñu koy dundee fii ñi ngi fas yéene ànd ak yéen ci xew-xew yooyu muy xew-xewu diine muy xew-xewu àdduna ak lépp lu mën a doon ngir dégtal leen li nga xam ne nii mooy ay réyalité yi am Jurbel mooy xew-xew yi am Jurbel am Diourbel kon ñu ngi daje ba beneen yoon